parce que defe naa ne li fa daje lépp ci ay xale ñu ci bëri xamante wuñu woon te tey incha allah ci bis bi dinañ commencé di xamante relation yi gën a yokk loolu nag di ak sant yàlla waa ànd defar commune ni nag am mbégte mu réeréy waa ànd defar commune am mbégte mu réeréy ci invité bi nga xam ne invité nañ leen ko ci événement bi amaat beneen mbégte bu réeréy ci Mara mi nga xam ne mooy attaché de cabinet ministre de euh, l' emploi ba pare ñu tuddee ko bis bi mu ñëw jàpp ci di jàppale ndaw ñi ndax ñun suñ kuréel gi li ko tax a jóg mooy lu suqale ndindi lu defar ndindi lu jëmale ndindi ca kanam kon nag képp koo xam ne da nga fay nekk di def liggéey boo xam ne day jàppale waa ndindi day suqali ndindi jeunesse bi dañ ciy gis seen bopp yaakaar naa ne ñun danga nga ñuy jàppale ci suñu liggéey kon Mara Diop ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci bis bi ñu la tuddee. te xamoon nañ ne nii lay demee di remercier waa Mbobène bu baax a baax di ñaan dëkk yëpp nag ñu rey ci Mbobène ndax lii ñu def lu rëy rëy la li ñu def mooy tax nit ñi di ànd mooy tax nit ñi di booloo mooy tax nit ñi di jàmmoo te lu rëy rëy la na ci ñëpp roy Mbobène dëkk bu nekk dëkku exemple la ci biir euh, commune Ndindi ñun nag waa ànd defar commune Ndindi ñu ngi leen lancé lancer un appel di profiter ci jotaay bi leen xamal ne li ñu tax a jóg du dara lu dul fexe lu dëkk bi kanam fexe commune bi jóge ci ay fexe commune bi jóge ci ay coono fexe commune bi tegu ci ay loxo yu set fexe lépp doon jàmm ak salaam ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax encore une fois di remercier waat parrain bi Mara Diop di bu baax a baax waa Mbobeen te njiit la di Serigne Mor boobu mi taxaw jiite association bi merci beaucoup. Euh, maa ngi nuyu mboolem ku nga xam ne ñi fi nekk di ko tàmbalee ci sama xalifa bi toog nekk ci biir bas bi di Baara Diop di nuyu Sam Diop waaye di nuyu mboolem responsable politique bi nga xam ne yaa ngi fi. waaye di nuyu aussi président bi nga xam ne moom mooy président mu euh, moom mooy président association bi di sëñ Mor Bopp euh, di sant yàlla bu baax a baax a baax di santaat bu baax ndax occasion bii ñu ma may gone yi mboobeen magi mboobeen tey ndax bu gone yi amoon décision ne dañ ma koy tuddee te mag ñi nga xam ne nekk nañ fi ànduñu ci wax dëgg yàlla duñu ma ko tuddee président maa ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg yàlla day sa Pastef sa euh, sa sa bëgg-bëgg bu la déggee ngay wax rek da nga ñuy ñaax ci lu bare bare bare bare dama koy faral di wax ne ko Mor Bob de bu ma ko déggee muy wax ci groupe rek sama xel day dal ci lu bare bari parce que ku ci dérapé dina la teg ci yoon loolu maa ngi la ci encouragé di la ci continuer di remercier waat ba kenn ko ñenn ñoo xam ne seen objectif ci ndindi jàpp naa ne tey képp kuy doomu ndindi nga nekk ndindi juddoo ndindi yaroo ndindi sa objectif boobu ñoom ñu am ko wax dëgg yàlla fierte la pour ñun danañ leen sant danañ leen gërëm muy ànd defar commune ndindi en commençant par président bi di ko sant bu baax a baax xam nañ ne lii moom du yitteem waaye ñu ngi koy ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax ne euh, ñu ta yóbbante ay nuyoo ci moom pour ñu jottali ñu ko waaye di yóbbante ay nuyoo ci président d'honneur bi ak mboolem membre de bureau yi nga xam ne ñoo ngi ci ànd defar commune Ndindi waaye nag maa ngi santaat bu baax délégation bi nga ànd ànda xam ne dañu ànd ak moom ñu jóge ci le ministre Dame Diop kooku nag bu ma ko tuddee dinaa taxaw tuuti ci moom parce que it dafa am teraanga joo xam ne da koo defal doomu Ndindi man jàpp naa ne képp kuy jeunesse su Ndindi Dame Diop defal ne la teraanga parce que bu ñu ko président de la république amee confiance nommé ko fi mu ko nommé mu yëkkati poste bu toll ni attaché de cabinet dana ne du ko dugal kenn ku du ndindi la koy dugal kon loolu dañ ko ci sant dañ ko ciy gërëm di remercier waat sama xarit bii nga xam ne Lamine la tudd mi ngi jóge ba France day fubal foofu waaye bi mu déggee mu ne dañ ma ko pare ne dane moom day dagg yitteem yëpp ñëw assister ko ba pare doo ko dem vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm conseil départemental de la jeunesse bi nga xam ne ci ñoom laa nekk di liggéey mu représenté fii par Basirou Diaw waaye di ànd ak délé délégation ñëw dinaa santaat bu baax a baax a baax chargé de mission à la présidence bi nga xam ne moom moo jiite département Bambey ci wàllu ndaw ñi di Moussa Ngom yëkkati kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko jox ñu ko maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di lancer un appel à tout la jeunesse de Ndindi que lii lu am solo la ci dëkk man dama gis ni ñu ko defee muy yar teey dal te kenn am indi ci benn histoire muy loolu nag bu ñu ko tàmbalee ci nawetaane man de lii bu dee am luñ ma ci woo ma wuyu si ndax daaw bi ñu fi defee ay organisation ñu def fi ay ay tournoi tournoi yi am ci dal ak tey ak teg man lu ñu ma ci woo ci dal ak tey ak teg rek Mara Diop dina wuy si ci loolu di wax ne doomu ndindi lan lenn yitteelunu lu du développement ndindi lenn yitteelunu lu nu ndindi suqaliku jëm ca kanam te buñ ne ndindi suqaliku jëm ca kanam mboobeen ci biir la jongo ci biir la kër aawa ci biir la yeneen dëkk yi ñu wër ci biir lañ kon ñun ndaw ñi nga xam ne euh, kii ko jóge fii léegi wax na ko ne tey benn objectif moo nu war muy ñu bokk ndey bokk baay seet ne tey développement Ndindy moo nu yitteel na leen prôné pour développement Ndindy googu waaye maa ngi sant bu baax délégation Matar Sylla bi nga xam ne gis naa ko fi muy lu rafet lu am solo waaye di sant sama doomu ndey sama xarit sama wóllëre koo xam ne du jóg di ma conseil muy président Sidi Badiane président si Sidi Badiane sama mag la président Sidi Badiane sama lépp la vraiment maa ngi koy sant tey daf ma woo ma dama amoon yitte ànd ak yow ci ci yëf yi ba am àgg waaye dama am dese boo xam ne nii mi ngi fi président bu Mbàkke aussi maa ngi koy sant bu baax a baax gis nañ seen taxawaay ñoom it kon man jàpp naa ne toute la région de Diourbel ñi ngi fii tey ci Mbobeen benn yitte moo leen yëkkati ñu àndandoo seet ne tey développement Mbobeen moo leen yitte développement Mbobeen boobu nag ñi ngi laas yeneen commune yi yeneen village yi ci commune bi mboobeen doy na exemple parce que lii lu am exemple la bu ndaw ñi wootee bu subaa bu daayira bi woote woon da ngay gis ndaw ñeeg daayira bi ñëpp àndandoo dem ca daayira bi bu jigéen ñi wootee dangay gis ne jigéen ñeeg ñëpp àndandoo dem ca daayira dem ca dem ca jigéen ñi kon président maa ngi lay santaat bu baax a baax a baax di yëkkati cant gi di ko teg ci sa loxo ga jàllaleel ma ko ci mbokki mboobeen nga jàllaleel ma ko ci mbokki jeunesse mboobeen di leen tàllalaat loxo pour ñu ñaanal ay ndaw rek lan yenn yitte rek la ñu bëgg muy développement Ndindy maa ngi leen sant di leen gërëm Baye Mandoumbe jërë ngeen jëf je vous remercie ngeen jëf